bii du suñu njëkk jël chèque tey du yaakaar naa ne mën nañu dem ba egg ak ñun milliards sax loolu mooy suñu objectif donc fas yéene jàppale jigéen ñi parce que sa koor ak korité yëpp dañuy jàppale jigéen ñi accompagner leen par le biais de l'IMSEC ñoom ñuy liggéey di fay ba léegi amuñ ci benn jafe-jafe ak ñoom ëpp na 5000 femmes ëpp na 5000 femmes. ñii dañuy liggéey euh, ci wàllu napp jënd ak jaay jën ñii di liggéey ci bëri na ñii di liggéey ci wàllu euh, euh, jaay lujum yi comme ni ñu koy waxee frisé lujum yi ñii di defar ay jus di jaay céréales local gi. bu ñëwee tey jii nga xamante ni moom mooy koor am na jigéen ñoo xam dañuy dem jënd ji ay assiette kaaseeg yooyu di jaay di ci dimbale ko ñi di jënd ginaar ñi di jënd soble ñi di jënd géej ñi di jënd yéet dañuy financer ñëpp la ñuy financé ba ci jigéen ñi ak góor ñi ñëpp la ñuy financé dañuy gis xale bu góor boo xam ne koor day ñëw mu ñëw ne la Ndeye Fatou dama bëgg nga jàppale moom benn 100000 francs pour mën a liggéey assuré koor jàppale sama yaay nga lebal ko mu dem jaay chaque jour bu amee 5000 francs dem dépense bu baax am nañ mu am dem 100000 lañ commencé ak am butigu boppam fay bàyyi ko di wut si kees Jurbel ba cena ba fu nekk dama fay financé ay jigéen yoo xam ne dañuy yaakaar ci réseau bi bu ñu làgg-làggal financé leen lu ma 2 millions wala million